numéro un de l'actualité sur mobile Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd geeg topp gi ñu wéyale jotaay waxtaan yu ñuy amal ci actualité politique rawatina ci élection locale 2022 yi nga xamante ne nii le 23 gii ca lañ nar a jëm ca vote gi ñu dalal kenn ci candidat yi waaye bi yoon ci ville de Rufisque lay doon mu di Mame Gor Diazaka ngeen miin ko ci écran yi ngeen miinoon ko ci benn facette waaye bi yoon il est un homme politique fas yéene laaj li nga xamante ne moom mooy mairie dëkkam gi di Tëngéej Mame Gor candidat la waaye jiite tête de bi ñuy euh, wax coalition booloo defar Tëngéej Mame Gor Sénégal lay dalal ci jotaay waxtaan wi fas yéene dugg ak yow ci fan nga toll ak campagne bi ak lan nga présenté askanu Tëngéej comme projet politique pour mën a jël ndam li ca 23 janvier 2022. waaw waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu képp koo xam ni internet nga boo xam ni Sénégal moom mooy sa sa sa buntu ci internet di ko xool donc tey jii ni nga ko waxee mooy campagne yi commencé na depuis donc defe naa deux jours wala trois jours rek moo ci des pour ñu dem ci vote yi ñun nag ñu nekk ay doom. ci Tëngéej fii fii leen juddoo yaroo fi màggee fi du ñu ay homme politique boo xoolee suñu coalition bi ñu def mu tudd booloo defar Tëngéej ñi ko composé ñëpp c'est des gens yoo xam ni daawuñu politique te tey li leen xiir ba dugal ñu ci ñun ñëpp ñu taxaw bëgg jël suñu dëkk bëggoo defar mooy Tëngéej a été dirigé Rufisque bokk par des politiciens yoo xam ne ñi fi nekkoon du ma ni baaxuñu duma ni baax nañ parce que boo xoolee am na lu ñu fi def am na lu ñu fi deful mais bu njëkk ba li xewoon dafa xew yi léegi ay politique gu defar biir ak ay politique gu cinq mille dix mille moo xew yi parce que ñun ñoo fi dëkk di bouger di génn ci ci di ñëw foo dem boo nee Tëngéej laa dëkk di ne njëkk wax mooy da ngeen a salte te salte boobu li ko def mooy ay njiit yu bon yoo xam ni dëgg dëgg ñeex yàlla seen poche la ñu jiital ak seen biir. que ñu jiital dëkk bi tey am na ay maire yoo xam ni fu sori lañ dëkk ci biir Sénégal mais bu ñu nuyoo Macky Sall seen tour lay jaar mais Macky Sall ñëw na fii te nga def fi week-end lëmm maire bu ko nuyu mën la noo tudd xamu leen parce que liggéey ñu te nga boo xoolee région de Dakar ñun rek ñoo fi dese suuf ñoom foo leen fekk ñu ngi xool ay poches yu ñu jaay ci loolu lañ nekk am na fi ay coalition yu bëri yoo xam ne ay nit lañ yoo xam ne dañoo ànd problème mu foncier moo leen boole comprendre la ñii ay jaaykatu suuf lañ ñii ay maire lañ yoo xam ne dañoo am ay problème foncier donc ànd mais nag tey ñun ñooy coalition de rupture bi nga xam ne ñoo ñëw nekk ay nit yoo xam ne c'est des gens yoo xam ne daaw ñu def politique doon doon dëkk bi ba pare social yàgg def ci Rufisquois yi mooy tey jii ci wàllu bourse man mi di wax ak yow may naa fi ay bourse ba tàyyi may ko des étudiants Rufisquois couverture maladie universelle naka noonu boo xoolee lycée yi fu mel ni Ablaye Sadji fu mel ni jardin public fu mel ni ASC sportive yi équipe yëpp ku ci solul sama defe naa ne équipe tëgg yëpp sol nañ sama maillot donc ñun depuis des années ñu ngi def social ci dëkk bi te boobu xalaatuñu ni sax un jour dinañ ñëw ni dañoo soxla maire yi mais tey jii deux jours moo des ci nit ñi bokk ci way bi mooy lii fi nekk Rufisquois yi jëlee ko fi parce que mënuñu jiital ay nit pendant des années ba ñu juddoo ba léegi ñun sunu papa yi deewoon 1980 koo ci ci armée lam day xam yoonu këram daara changé wul ci dëkk bi dëkk bu nul am géej am canal di inondé ñun on a quatorze kilomètres de canon à ciel ouvert liñ ciy jot a tëj sax dañ ko jël jaay ko def ko ay cantine jox ko ay nit mais xaalis boobu mën nañu ko def ci assainissement te am na ay quartiers yu nekk fii comme Daaru Rahman comme Colobane Guy Murit ay quartiers yoo xam ne dafoo waroon am ay district de santé de haut niveau benn hôpital la ñu am hôpital Youssou Mbargane amul matériel yu doy. te tegee budget bi egg na cinq ba sept milliards te tey depuis acte trois de la décentralisation amatul benn maire boo xam ni état mun na la jàppale état mun na la teg loxo ci benn côté mais un maire dafa war a nekk quelqu'un boo xam ni dafay am ay buntu mën a dem ci biti dem indi ji ay investisseurs ñu investir si dëkk ñun nag dañu am ay nit yoo xam ne ils sont prêts pour jàppale ñu ci ñu defar sunu littoral bi nga xam ni on a six kilomètres boo xam ni littoral la mbari dañ fay tuur ak petite tey littoralu Almadi bi matul trois kilomètres tey ku xam Sénégal boo demee Almadi ay restaurant ñoo nekk ci littoral bi ay banque ay café affaire yooyu te ñooñu bu ñu fa nekkee dañuy day municipalement municipalité bi da ciy am xaalis parce que ñooñu dañuy fay des recettes di fay impo est-ce que ba pare dinañ jox la jeunesse liggéey tey jii man je connais am naa ay chaînes yu ma xam yoo xam ne tey c'est des hôteliers tey jii Rufisquois yi war nañ mën toog ba ngoon nga am sa jabar am sa doom ngeen ànd dem ba côté plage xool coucher du soleil naan benn café waxtaan xam nga parce que loolu dafa bokk ci cadre de vie dafa bokk ci dundu doomu aadama mais man am na ñu ma maaseel ñoo xam ne ci samay moroom yoo xam ne tey ku ma ci dajal boo gisee da nga naan mook sa papa maase parce que amuñu fu ñu jëm bu ñu liggéey ba ngoon dañuy ñëw ñu tëj leen ci nekk tegal leen ataaya cuuraay leen ñii asthme ñii am ay te mu nekk dëkk boo xam ne dëkk boo am tefet tefes à vingt huit kilomètres de Dakar donc nag duñu ko nëngu loolu moo tax tey ñu sol suñu dàll taxaw ci xeex jël mairie bi changé dëkk bi léegi nag Rufisquois yi ñoo parewul pour fal ab politicien c'est fini ren ji balaa mi di nga dégg wiiw maam góor maam góor Diazaka kii di campagne wax fond wax moyen euh, fan la maam góor sukkandiku ay moyens ngir mën a réaliser objectif am mooy fas yéene doon meeru Tëngéej jàppoon nañ sax APR ngay àndal mais danoo gis ni da nga demee sa coalition bopp est-ce que nekkul quelque part il y un deal wala Macky Sall si j'ose parler ainsi moo nekk ci ginnaaw campagne euh, maam góor jazaak. merci beaucoup posé nga ma question boo xam ne question bu ma neex la mais man yàlla dogal na politique gu Macky Sall dama koy dama koy dama koy soutenir lu bari di ko jàppale. mais dëgg dëgg neex yàlla Macky Sall nekkul sama ginnaaw ku nekk ci Macky Sall nekkul sama ginnaaw yàlla dogal na ni bokk naa ci waxuma la sax Rufisque fii mais bokk naa ci les sénégalais yi ñu ngi njëkk déclarer seen candidature ci Sénégal di wax ni candidat laa ci mairie Tëngéej am na sax ñoo xam ne ba may wax naan candidat la gëmuñu ko woon dañ doon wax maam góor mii day soob xam nga du nekk candidat am na ñoo xam ne bi ma yóbboo sama caution ba pare ci la door a gëm ba ñu wane ma CDC ci la ñuy a gëm ni maam góor mi tey jii nit ñi boo nekkee woykat wala nga nekk footballeur wala genre ngay liggéey suñu yenn liggéey ñi gars yi dañuy jàpp ni kii amul xam-xam te xamuñu ni ñoo ñoo ëpp xam-xam parce que tey jii George président la te football la doon def il faut que ñu xam ni un artiste c'est un ambassadeur d'abord mooy tey day jóge fii di dem bitim réew di jokkalante am ay xarit avant muy sàkku dara tey man maay maire bi gën ci Rufisque donc tey ji awma benn deal ak le président Macky maa ngi soutenir politique am mais tey ji ñoom opposant lañ ma jàppee jàppale wuñ ma yàppa quelque boo xam ni génne na mille francs ni ma maam góor maa la ko jàppale man dama nekk nit koo xam ni ci sama àddina dama am fulla am fayda am jom ba ma taxawee ni candidat laay doon ci mairie Tëngéej boobu ba léegi laa commencé su ma amee sama fukki dërëm denc su ma amee sama 100 francs denc su amee sama junni denc di dajale di bañ ku ma bett parce que dama xam ni nit ñi kenn xàmmeetu leen mun nga dem ba ci biir nit war la jàppale te duñ la jàppale j'ai des amis dans le gouvernement comprendre la ak keneen ak keneen mais soo góor góorgóorluwul ñaafal sa bopp tegal sa bopp da xëy suba teel am gàcc moo tax ñun ñu créer suñu coalition bopp parce que dëgg la Macky Sall mooy le président de la République politique dama ko apprécier liggéey nañ ci Sénégal liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la mais dama jàpp ni. politique gu gox goxaan mooy ay gox goxaan kenn du tànnal nit kan moo la war a nekk sa maire ñun nous sommes les fils authentiques de Rufisque juddoo ci dëkk bi yeroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi yeneen candidat tamit il faut accepter am nañu d'accord xam nga xam nga xam nga loolu bañalu leen ko mais man dama jàpp ni ci biir candidat yenn saa yi nga dégg ci ay nit yoo xam ne dañ naan nit ñi dañuy wax ni dëkkuñu fi est-ce la bëgg expliquer man nag kenn mënul werante ni maam góor Tëngéej la juddoo fi la yaroo fi la màgge sangu ci géej gi dara nga ci kanaal bi saa ci mango ci tool yi fi laa juddoo màgge fi donc nag man nekkuma koo xam ni kooku tuddal ci Tëngéej mu la ñoo bokkoon classe non non non dëkk boo ko bëggee jiite da fay am bàjjen am fa ndijaay am fa ay goro mën leen a yërëm comprendre la doo bëgg ay post nominatif pour ñëw bëgg jël une ville une grande ville comme Rufisque ñu bëgg ko jël di ko neexale benn nit parce que am na ay Rufisque yoo xam ni dañuy jàpp ni xam nga tëngeej du cadeau bañ koy jox kenn donc ñun ñu fi juddoo yeroo fi màgge fi ñun am war nañu mën a am sañ-sañu ñëw taxaw suñu taalal suñu loxo askan bi et puis ñooñu di wax noonu kenn mësu si defal askan bi dara am nañ fi man du ma député du ma ministre mësuma am benn poste boo xam ne Macky Sall moo ko jox te am na ñu ma ko jox ci dëkk bi comme non ah, ay doomu tëngéej yu bari ñoo nekk tëngéej yoo xam ni yàgg nañ représenté tëngéej partout mais dama ni ñi nga xam ne dañ leen jox ay post nominatif am na ñoo xam ne fal nañ leen fi député depuis des années ñu ngi nekk député kenn mosu leen a dégg ñu défendre benn cause boo xam ne pour Rufisque la man masuma ko gis ñu engagé wu dara pour la ville de Rufisque benn am na ñoo xam ne nekk nañ fi ay ministre kenn mosu leen gis ñu def benn social pour Rufisque mosu ñu def dara pour Rufisque ñun au moins dañuy tooñ sax naan suñu jàng soriwul waaye yàlla dimbali nañu ba bourse yi ñoo koy maye couverture maladie universelle ñooy dimbali nit ñi ñun ñoo sonn ci askan bi di leen jàppale ki yor nag dama ni ki yor moto di la yóbbaale bu yoree 4-4 da ngay jaaxaan wéeru ñu taalal la climatiseur. xam nga Tëngéej ñun dañu am programme man je suis un homme de culture je suis un artiste homme d'affaires mais tey jii Tëngéej boo koy dégg danga nga dañ naan Tëngéej devise bi mooy une ville de culture une ville d'histoire et de culture mais culturellement Rufisque est mort historiquement Rufisque est mort tey ñii ñun dañu dese suuf fii ci lendeng bi dama ni man ci sama programme dafa am les artistes de Rufisque waratuñu am xew di ko yóbbu Sorano wala ñu koy yóbbu fu mel ni Grand am nañ espace fii pro ci sama programme dama ni damay defar benn salle boo xam ni fii ci biiru Rufisque ci site yu bees yi fii nga xam ni ci diggu Rufisque la nekk mais espace yu libre la ñu def fi ay salles yu mag yoo xam ni dina jël ba huit cent ba neuf cent personnes ba mille personnes nga xam ni dañuy jël benn salle bu mag tuddee ko Maam Fat Seck xam nga nit lu nit gàtt nopp masa di nga dégg ku ñuy wax Maam Fat Seck moo daan def ndëpp xam nga ndëpp dafa am culte am culture boo jëlee saal bu mel noonu nga tuddee ko ku mel ni Mame Fatou Seck nga xam ni Bill Clinton jóge na États-Unis ñëw seet si ko fii dangay ngay jaay destination Rufisque parce que ñun bi ñu nekkee xale sam papa ak suma yaay ay commerçant la ñu woon marché Tëngéej dama daan toog tubaab touristes yi ñëw fi ay guide touristique ànd ak ñoom di leen woon waax bu yàgg bi mooy port bu port bi njëkk am fii la nekkoon fii lañu daan déporté gars yi xam nga fi ñu def tey marché jënu Rufisque bi ah, moo nekkoon angaaru gerte bi gënoon mag ci Sénégal est-ce que comprendre la boucherie bi yooyu yëpp c'est des édifices yoo xam ni colon yi ñoo ko fi bàyyi woon mais tey jii boo xoolee marché yi tëjoon caaro yi fépp ñu dañu ñëw esquatter dëkk bi ba nga xam ni ville de Rufisque dafa dafa dee donc nag ñun benn tëngeej problème yi ñu njëkk a am mooy problème mu assainissement mooy dinañ assenir dëkk bi fexe ba nga xam ni tey kër yi nga xam da ngay dox ba ci yàgg mu nekk ci diggu mbedd ñu xool nu ñuy waxtaan ak ñoom ñu xam nga même bu leen dee dédommagé dindi leen créer ay yoon yoo xam ne day connecté wu ci kanaal bi nga xam ne bu ndox tawee bu dalee rek day dem créer ay district de santé fu mel ni euh, euh, Daaru Rahman bi ma tuddoon sànq parce que Daaru Rahman man j'ai un boo xam ni jigéen bu wasin bu dee dix jigéen yi wasin cinq ci otoom la ñu wasine parce que moo fa am oto gars yi dañuy daw di ko jël bala mooy génn mbedd yi bay dem ndaw si mat ci yoon bi ci dëkk boo xam ni dafa jege Dakar fu mel ni Rufisque loolu waratul am loolu amatul sax ci àll bi waxuma la fii comprendre la donc loolu lu ma war a njëkk a xeex la créer leen foofu district de santé boo xam ni ak si samay ay partenaires mun naa dem bitim réew tey ji matériel médical dañ la koy jox gratuitement man j'ai des amis yoo xam ne mun nañ ma ko defal en Belgique Abu Dhabi fu ne ci àddina bi benn ñaareel ba mooy salle culturelle bi ma la tuddee ko Mame Fatou Seck mu def ay compartiment fi nga xam ne moom moo nekk salle de spectacle ñu tuddee ko Adja Xaar Mbay ma jaaga parce que dafa am lu mu représenté du Rufisque dafa am lu mu def ci culture sénégalaise tey ji ki dàqoon dessiner Sénégal ñu koy wax mbay Diop moo daan dessiner Senghor c'est un refus quoi xale yi xamuñu ko tey ji ci biir foofu comp salle boobu mun nga def benn compartiment ñiy def art plastique nga tuddee ko Mbaye Diop ñiy def art plastique ñëpp mun fa dem di fa def seen i tableau di jaay nga xam na ngay jaay destination Tëngéej maire Fat Seck culture la daan def mais gumbe bi culture la ñuy wane ay vidéom jël ay béjjén yi mu daan utiliser ay photo yu mu ànd ak Bill Clinton destination Rufisque da nga koy a jaay aux benn ñaareel ba mooy tali yi tali yi tali yëpp dañu war a tey ji négocier ak gouvernement bi fexe ba tali yi ñu goudronné ko mbedd yi dox marché bi ñu désengorger ko ñi nga xam ne dañuy fayeeku ci maire bi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ci maire bi dañ fay fayeeku te liggéeyuñu ci maire bi parce que tey ji soo nekkee candidat di wut mairie da ngay gis ay nit yu bëri dañ lay topp naan dañuy ànd ak yow di la jàppale pour boo faloo nga embauché leen ci maire bi maa ngi dégg sax ñu naan maire bi fi nekk nii mandaam jeex na mais ci fin de mandat bi mu ngi embauché rek ñoo ñoo rey Tëngéej da ngay embauché ay nit yoo xam ni chaque fin de mois ñu fayee ko salaire trois cent quatre cent mille te du ñu liggéey man nag bis bu yàlla dogalee incha allah dimanche may nekk maire te su ma gañee li may njëkk def mooy képp koo xam ne du ma kenn nag mais képp koo xam ne dañ la embauché ci maire bi te amoo poste doo liggéey si duma la fay salaire xaalis bi ñu leen di fay mun na defar assainissement Tëngéej ñu loolu moo tax loolu moo tax les candidats de rupture baaxuñu ci gars yi parce que Rufisquois yi deetuñu votel nit kuy politique parce que man ba ma juddoo ba léegi Tëngéej ay politiciens ñoo ko jite te defuñu fi dara. Mame actualité politique bi gis nga ni fan yi ñu bëri ñaawlu nañ violence gi am rawatina mu doon violence verbale euh, bi ci mujj gis nañu candidat opposition bi coalition Askan Wi candidat pouvoir bi benn bokk yaakaar ku ci mel ni Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Lat Diop ak jëmale ko ci euh, Aliou Sall waaye ñoom itam ñu tontu ko mu mel ni tontante boobu noonu. Mhm. ci homme politique yi ci ñuy xaar ci ñoom xëy ay comportement yoo xam ne lu exemplaire la. Mhm. ndax ñëpp a ngi sàkku ñu war a mën a def élection yi surtout ñoom ñuy ay kilifa te du am kàddu yu ñagas euh, ban jàngat nga am ban lecture nga am tey jii yow en tant que candidat ndax da ngay prôné ak waaw loolu dañ koy ñaawlu mais bala may dem di tontu ci ci loolu dafa am benn alerte boo xam ne dama koy lancer au Rufisquois parce que dafa am ci candidat yi ay kandidaa yoo xam ne tey jii dañu wóor ni ñoom ison perte nañ combat bi d'avance parce que xam nañ ni du ñu gagné du ñu gagné est bi ñu dëkk duñu ñu fa gagné ñi dëkk nord xam nañ ni ñoom duñu ñu gagné nord. tey jii commencé nañ ñëw di côtoyer sama ay nit man di waxtaan ak ñoom naan leen léegi wooteel leen seen bopp yéen pour ngeen gagné commune nord bi mais ngeen wooteel ñu ville ñun mënuñoo am suñu coalition ànd di ñafe boobu ba léegi man ak madame Yoni Thiam ak Thierno Ndoye am ay candidats yoo xam ni c'est des mën nañu wax ni c'est des dinosaures politiques nekk si dëkk bi mosuñu amal njëriñ Rufisquois yi tey ñu bëgg a jënd conscience Rufisquois yi loolu peine perdue la pour ñu xam ni tey jii deal bi ñuy jéem a def. di dem ci nit ñi di leen wax naa leen wooteel leen yónni Thiam Nord te ngeen wooteel ma ville loolu mënul jàll ñu ngi wër di gis yeneen candidat beneen candidat bu mu fi ñàkk a fayda ku am sa coalition di ñafe wooteelal sa bopp Nord boo amee sa candidat ville sa bopp nga wooteel ko ville soo ko mënul nga wooteel candidat rupture yi nga xam ni mooy suñu classe gi mais ñii fi nekkoon nga xam ne ay poste nominatif lañu lañu lañu la ñuy wut nañ xam ni pexe yi ñuy jéem a pexe xam nañ ko beneen bi ci topp am na ay candidats yoo xam ne ñu ngi def ay pexe pour jour élection yi ay vers 15 heures xam nañ dañuy perte nord bi ñu ngi recruter ay nervi pour am ay bureau yoo xam ne dañ ko bëgg a toj. loolu nag je lance un damay alerter le préfet parce que xam nga man chaque jour nga dégg gars yi man la balaa midi ma gañe leen. ti dama dama xam dama leen di gañe li ma def ci dëkk bi non li ma def ci dëkk bi ci mbaax ak social ak ni ma bëggee dëkk bi ak ni ma toppee dëkk bi. ñoo xam naa ni ak programme bi ma am Rufisque man la ñuy wooteel léegi nag am na ñoo xam ne fi mu toll nii ñu ngi recruter ay nervi bëgg a toj ay bureau de vote léegi nag damay alerter le préfet monsieur Babacar kan préfet de Rufisque loolu na ci bàyyi xel na sécuriser bureau yi parce que man dama bëgg balaa midi ma woo ko téléphone mu indil ma sama bando voilà. Mm. rawatina waaw loolu dañ koy ñaawlu xam nga man dama koy wax chaque jour aman chaque fois su ma waxee ci Ousmane Sonko nit ñi dañuy jàpp dama ko contre mais chaque jour histoire daf may jox raison Ousmane Sonko tey dafa lancé défi sénégalais yi ni moom Sénégal dañ ko bëgg rawatina waa Ziguinchor mu dem ba Ziguinchor au lieu mu wax waxu Ziguinchor mu wax waxu Casamance yëpp di wax monnaie local ci dëkk dëkk boo xam ne dafa nekk ci biir Sénégal doon poumon Sénégal nekk dëkk boo xam ne dafa am rébellion sensible non may ma rek dëkk bu sensible ni Casamance waruloo fa dem dëkk boo xam ne dafa am guerre pendant trente ans presque nit ñi di fexe ba jàmm jooju yëpp di dellu si euh, euh, euh, Sénégalais yëpp jël lépp ñu nga xam ni Sénégal région yëpp benn la ñu parce que Casamance man mi di wax yow am naa fa ay bàjjan ak ay tante kenn mënu ko xaajale nga dem fa di wax monnaie locale ça veut dire que ni yow chaque jour affaire séparatisme rek ngay wax c'est pas bien beneen bi ci topp mooy Sonko il est dangereux il faut que xale yi ndaw yi ko topp ñëpp soo xoolee tey ay Guy Marius Sagna yi fi taxaw naan ay activiste lañ faruñu fenn tey si ñoom ñoo nekk seen biir kii ça veut dire ni ñoom ñoo far bëgguñu jàmm Sénégal beneen bi ci des mooy yow nan nga mën a nekkee en pleine campagne nga taxaw ni candidat nga ci Ziguinchor maa la ko wax fii maa la ko wax fii Sénégal laa ko waxee day perte dañ koy gagné xam na ni Ziguin mais yow Ziguinchor ñi ko bëgg ñëpp ñu ngi nekk biir Ziguinchor di campagne non dama ni d'accord xam nga li ma lay wax dafa clair moom daf nii day dem Ziguinchor day gagné gars yi mais campagne wul boobu ba mu ngi topp dëkk bi xam nga lan lay wut alibi pour ni woy dama doon wër di jàppale sama mbokki candidat yi moo tax nekk moom moon soor dañ koy gagné maa la ko wax fii du gañee gagné Ziguinchor am fa légitime du nitu jàmm sénégalais yi duñ ko woteel benn ñaareel bi ci des yow nan nga mun a demee ci ville boo xam ni ñoom ñoo tànnal seen bopp seen maire voteel ko mu gañe mu liggéey fa pendant des années Sonko fu mu taxaw ci senegal wax waxumaa ci benn benn dëkk la demul Sénégal boo xam ni ka fa nekk ànd ak Macky Sall neewul sàcc la moom il a un problème yow tey jii nga toog depuis yow des années yaa ngi nii liggéeyoo di jënd essance di dawal oto di def yëpp. yow nga ni sa salaire député da ko maye mais moom lan lay dundee fan la jëlee xaalis na wax Sénégal yi fan la jëlee moo ni na moo dax a toje ñëpp gis nit doo ñëw taxaw nit am njaboot am ay doom jur ay nit ay nit yaakaar ko mu jiite ay nit nga ñëw taxaw di leen jiiñ sàcc gisu leen ñu sàcc xam nga moom lan lay wut dama lay wax moom booy comme moom comme comme moom comme moom moom dafa comme nekk day na mel ni artiste bu bees buy door a jóg non ban ndàdde la jël déet jël troisième ndàdde la jël ndàdde la jël dama ni Moustapha Niass amoon na lu ko ëpp Moustapha Diop Moustapha Niass am na fi 17 pour cent Sonko bu mu ñu fontoog 15 pour cent am ñaari nit la raw dama ni ndax ndàdde la jël ci élection yi dafa dama bëgg mu leer chaque jour mu ko candidat yi ñett rek la moom ak Idrissa Seck ak Macky Sall parce que Madické Niang il est un mois des élections Ablaye Wade joxe consigne de vote ni bu ko bu waa PDS ànd ak moom kooku du gañe keneen ki gaa yaa ngi werante naan daayira la yor wala yorul daayira nañu xam dëgg ñi mu raw ñi mu raw rawul kenn ndàddeel la jël ba pare Ousmane Sonko pour mu nekk député plus fort la jàlle député yëpp a jàll ñu dem ci mbalit mi xool desitu carte yi pour mu jàll nekk député il faut que nit ñi comprendre loolu parce que yow mënoo ñëw jël sa projet jaay ko la jeunesse ñëpp ñëw taxaw nga naan woy non même rek waaw waaw mais mais daf mais daf leen daf leen trahir trahir mooy xam nga lan nga nekk koo xam ni la jeunesse dañ la jox seen bopp wóolu la gëm la yow tey ngay toog ba weeru koor nit ñi toog di jaamu yàlla ngay génn sa kër àndoog garde corps àndoog chauffeur di dem ci benn gargote bañ jiiñ la fa viol ñun ñi ko deful kenn jiiñu ñu ko soyons logique kuy fréquenté baar xam nga yow boo dul fréquenté baar kenn du la ji kuy fréquenté jàkka dañ naan jullikat nga parce que man su ma lay gis chaque jour taksaan bu jotee nga waax rek dugg ci biir jàkk ji man pour man da ngay julli bu dee ci baar bi nga jëm tamit dama naan da naan mais moo fréquenté foo xam ni loolu lañ fay def gis nga nit da ngay am personnalité Ousmane Sonko amul personnalité moom bu yaakaaree ni politique ci saaga nit ñi la ak xas nit ñi la dafa juum Sénégal ñëpp ko weddi boo ko joxoon restaurant munu ko gérer est-ce que comprendre la man encore une fois la personne de Ousmane Sonko ne m'intéresse pas contre ma ko bañu ma ko moom bañu ma ko de ay idéem ak ay xalaatam laa àndul parce que nit koo xam ne saa yoo waxee fit na ngay wax lu wala lu taal réew am réew soo ko dee taal doo ko tabax doo ko defar wala même sax tey jii bu yàlla defoon nga fa kastalu dal ci sax doo ko defar soyons logique xam nga Sénégal xam nga Sénégal dëkku jàmm la ñun jàmm la xam ak ndoxum galaas tey jii dëgg dëgg neex yàlla élection yi man fi ma dégg coow mooy Médina Tëngéej tuuti coow laa fi dégg am na daal benn candidat boo xam nit ñi dañ ji ni dëkku fi mu dem benn kàcc ñu dóor ko fa ay xeer après nerveux mi génn di sànnanteeg waa koñ ba te après sedd na est-ce que la mais gëm naa ni Sénégal moom waxuma la sax élection yi mais Sénégal mooy dëkku jàmm Sénégal booy wootee fitna rek nit ñi génn ci yow donc nag acte bi nga xam ni moom la ñu wax ni nañ ko signé pour non violence man dama jàpp ni képp kuy sénégalais wala nga doon nit ku baax ku bëgg réew mi wala nga bëgg sa gox da nga ko war a signé ñun nag waa Tëngéej yàlla dimbali nañu ba bi campagne bi commencé ba léegi tojante wuñu bopp sanante wuñu ay xeer même ci biir candidat yi am na ci ñoo xam ni dañuy woowante téléphone man am na candidat boo xam ne ñëw na ba sama koñ di caravane taxaw ni fii sama rakk mu fi dëkk sama kii wax lu naaj ba ma demee koñam tamit dama leen di moom man lay woteel ñu tooñante ku nekk dem loolu mooy politique mais mel ni Ousmane Sonko foo dem da ngay saaga nit ñi rek nga fi nekke mais pour lan foo waat dañu waxante dëgg soyez logique c'est que Sonko na bàyyi sénégalais yi muy saaga bu ko bàyyiwul du am dara ci politique maa la ko wax di la jëfal maam ci kàddu yooyu noonu mbokki kon ñoo ko déggandoo Sénégal réewum démocratie ku ci nekk ak sa xalaat ak sa gis-gis waaye lépp rek ñu bàyyi xel ni réew mi benn bopp la bu ko kenn xar ñaar jàmm lañ bëgg ci local yi ñu jëm di leen jaajëfal yi ñu doon teewlu ci seen site numéro 1 de l'actualité sur mobile Sénégo jaa ngeen jëf